alliés dans tout ça donc. Ah, non que xam nga bu dee man titre bi laay basé woon. Ah. oui mais les alliés Birame tous les alliés n'ont eu que ce qu'ils muy AFP muy PS muy yeneen parti yëpp. ils n'ont eu que ce qu'ils hmm. munoo am sa parti politique yàlla may la mbooloo. yàlla may la euh, reconnaissance nga dem élection benn yoon ñaari yoon am loo tekki c'est vrai que c'est une coalition mais coalition ba nga xam ne yow gañe ci dara AFP gañe woo ci dara au contraire l'AFP s'est retrouvée affaiblie durant son compagnonnage bien sûr avec le euh, la paire mmh. euh, le PS n'en parlons pas c'est devenu un fantôme waaw c'est devenu un fantôme. Mm-hmm. y a plus rien rek. dans ces éclaté moom PS moom. nag ñooñu bu ñu buggee taxaw di réclamer quoi que ce soit moi je crois que ils n'ont qu'à continuer dans leur logique leur logique même pas de faiseur de roi mais de porteur de valise. ah mais si gisoon ni ñu ngoyee ci bennoo. mais ci ngoy ñoom pour ñoom bennoo dañ ci war a exister. parce que xam ne sans le bennoo ñoom seen biir parti déjà. c'est logique bi li kii doon wax keroog Mamadou Wane donc kon kon nga wax noonu loolu mooy ñoom ils n'ont pas le choix. déedéet.